ni oui ni non bi il semble avoir évolué dans son discours Macky Sall boo ko dégloo tey euh, xëy na lire nga ko li mu wax kii pour qui sait lire entre les lignes kii day nekk candidat en au moins du moins dina ko essayer maintenant nee nga ma le débat warul ne egg conseil constitutionnel nan lañ ko mën a régler te te du egg foofu. non ñun xam nga nag on une démocratie boo xam ne ñun suñ lu ñu am ci suñu histoire politique Sénégal fu mu toll loolu jarul laaj ñun. Mhm. on n'est la sous-région am na fi ñu yaroo. ñun <laughs> certains sont nés sous Senghor. Mhm. on a vu Diouf on a vu balaa muy ñëw. les gens ont tout le temps dialogué. Macky Sall a refusé le dialogue. Mm -hmm. le dialogue impose la force si tu imposes la force mais les gens ne n'auront d'autre choix que de faire face à. l'affrontement est inévitable loolu nga gis. moi je crois que l'affrontement peut être évité si Macky Sall revient à la, la raison. Mhm. S'il revient à la raison, il renonce à ses ambitions qui sont démesurées. S'il respecte les Sénégalais, il respecte les 17 millions de Sénégalais qui sachent qu'il n'est pas le seul né pour gouverner le Sénégal. S'il respecte les Sénégalais et croit eh, profondément que Sénégal du moomeelam s'il respecte les Sénégalais gëm ne Sénégal moom dina à existé avant qu'il ne soit né le Sénégal existe en sa présence jusqu'à ce qu'il dirige le pays et le Sénégal existera après lui bu nangoo loolu dina mën a toog xool boppam njëgënaayam yee ko ci guddi mu toog xel xalaat xam ne njaboot la yor xam ne moom ci boppam am na ñoo xam ne dañoo weeru ci moom am na loo xam ne kilifa moomu ko ku am jom moomu ko ku am personnalité moomu ko ku am dignité moomu ko ku am ngor moomu ko à cela maintenant on invite mm -hmm. ce que nous appelons les angles morts du Sénégal ñi nga xam ne kenn du leen déglu lu dul problème am mm-hmm. mooy les chefs religieux de tous les bords de toute confrérie confondue on a plus que jamais besoin de en ce moment on a besoin d'eux en ce moment pour échanger parce que nous autres de l'opposition nous sommes dans l'ancrage profondément de l'opposition aujourd'hui en train de travailler pour faire face au pouvoir tel que le président Abdourahmane Diouf tout le temps suggéré am na loo et nous allons faire face